ñu ngi koy waajal bu baax ñu ngi koy waajal bu baax ñu depuis Dakar lañ ko commencé waajal du fi parce que fii bu ñu ñëwee euh, répétition rek la ñuy def travail bi yëpp dakaar la jeex na léegi dañuy xaar jour yi rek pour ñu ñëw def li ñu jàngal. suñu yéene si match mooy gagné rek ñëw gagné rek loolu rek la lu leneen amul leneen dañuy ñëw rek gagné rey suñu bopp pour gagné. group bi ñëpp pare nañ ñëpp pare pour gagné match bi physiquement mentalement xam nga psychologiquement xam nga pare nañ. instant bi ngeen nii xaar rek lundi xam nga yàlla musal ñu si cat ak làmmiñ xam nga ñu ñëw nekk à 100 pour cent jour yi yàlla may ñu ndam. kooku ñoo ko final sax coupe bi la ñuy wax instant bi coupe lañ bëgg a jël. Ah. waaw te ñu ngi ñaan peuple sénégalais bi ñu ñaanal ñu bu baax ñëpp kilifa diine yëpp bàyyi ñu kenn nañ ñëpp ñaanal ah. waaw pour ñu mën a jël coupe bi daal.